الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته TV ziar bu jamono ji sëriñ bi toog na ñu koy di ko ziar bu baax ay saxaabaam ne leen dama gént dem Màkka ñu omra ñu ne saxaaba yi jël seeni hadiyu na ngay dem da ngay dem ngeen bañ demee baaxul ko ñu fekk seen i yéen ci loo xam ne seen i yéen gis na ko waaye يمر سبايا إن الذين يبايعونك إنما إنما يبايعون الله يقول الله فوق أيديهم يقول لهم جاءت يوم يوم يجاءت تحسن أيديهم حك دقيقة لمدة وقت تحسن أيديهم جاءت جاءت الله سبايا يقول لهم الله لم تستطيع

seeni xalaat jàpp seeni jigéen jigéen ñi mu jàpp boo ko mën sa sa mu yëngu dund xëy dund dund ak dara mu ngi dund dund xëy na kenn naa dara moo ko mu ñëw ñu ñëwal bañ ko jàppee jaam am na ñu ñëw ci saxaaba yi kenn ci saxaaba yi ñu ngi yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent wax nga laaj kenn ne ko dafa laaj la neex mu dem naan sax yëpp dal di jël yóbbu ñetti mbéy mi ñu ngi def yóbbu ñu ngi nekk ci maa ngi ci daara yi kenn mu ngi ko tànn nekk na sax yëpp ngay def ba mu ko defee nag ñu ne yonente bi sallallahu saxaaba yi nga def si yëpp bii mooy ñu tuuti mooy ñu tuuti yóbbu kenn nga doon ci moom bu ñu te dal ko rek dina ci gis dina

Jalan Pesek, Jalan Pesek, Jalan Pesek, Jalan Pesek,

gërëm ñoo ngi leen gërëm ñeent ñu ngi ñu ngi

yonent ñi nangu ànd ak Quraysh ñi nangu ànd ak yonent ku ànd ak yonent nag keneen ko soog xeex ak fu mën di bàyyeekoo yonent dana la dimbale ku jóg ak ku soog Quraysh ak fu mën di bàyyeekoo wala nga soog ñu ànd ak Quraysh Quraysh dina la dimbale ba mu ko defee ba kër yi ñu waaye ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom beneen gerte beneen gerte gi ñu doon defee dafa am ay soppamu leen ràññi ñoom ay ba mu ko defee ñu ñu ñu ñu ne ko waaw kon nag ñu ñu joxe dañuy soppamu si ñoom dafa bàyyi leen si ñu laay bi loolu ne leen dana leen dimbaloo dina leen dimbaloo de su ma leen dimbaloo yàlla dina leen yàlla dina yàlla moo yàlla dimbaloo dina leen dimbaloo dimbaloo bu wér dimbaloo gën leen dimbaloo nag loolu dafa takk rek jëm màkk rek bu ci màkk rek ونسألك فضلك خيرا بهديه وتقوى وبارك ما may leen maa ngi wax ak maanaam yu bëri yu bëri yoo xam ne ñu ko jëlee kaw bi bi xëy na wax dëgg yàlla moo gën yàlla yi ñu dem di aji ñu doon juróom parce que man di aji kaw keneen ci di aji doon lu nekk rek xam nga la nekk ba nekk waaw wax dëgg yàlla maa ngi leen naan seen dara wu ñu naan yooyu da ngeen jàppale ne naka noonu naka Mbacke Kaye ba yii yàlla def na da ngeen naan lu wax da ngeen jàpp da ngeen jàppale ñu ne xam nga daal saxaaba yi ne ngeen dara xajar ca ah ma ngi xajar rek dañ koy indi yooyu yëpp ay yàlla la wax ne fekkoon ne fekkoon ne ñoom seen bëgg ne فاجرة لكم لكم يا إخواني لنا نكبر يا لكن أي ما نقول يوم تدرك lii rek dafa yàgg rek nga leen ko lii ngeen xam ne leneen di leen ngeen jote ba ko ko fekk ay déplacé loxo yi ñu ñaan bu ma si leen ba fexe woon la ba xale woon ñoom yéen waaye ji moom bu fekk waaye ji moom

ñu ñëw rek ñoom yonent bi nekk ci pénc bi yonent ñëw nekk ci gànnaay ba mu defee nekk na xaalis bi wala mu tuub la ba ci ñëwee gànnaay bi yow fekk na ko ñu ñëwee moom xaalis bi ñu ko moo ko soxla jàpp ko moom ñi mu àndal ñëpp indi leen ci yonent bi yonent bi bàyyi leen leen ko ba ne ko yow moom xeex bàyyi leen nit ñi ñu bàyyi nag ñu ngi gis loolu tax ñu gëmal moo tax ñu soxla ci ñaar ñu ne ñu doon ko wax ba bañ bañ nag nekk ca xabar ak ak xaybar ak màng yaag seen yaag ñëw wax doomu bàyyi xam jaafar ak ñëw jabaram yooyu nekk ci di ko fekk mu nekk loolu lépp

bu la doon mën a nangam ak nangam ak nangam jaay dañu ko def ci àll rek ndax dina ngaa wóor lu bëgg dañ jënd ci bagage yi bagage yi mag jënd ci mag ba gën a jeex ñu la dëgg àll rek léegi jaay ko ko àll jox àll bu bëri mu ñibbi jënd mag ak sa gafaar abbas ak ko dëgg ne yàlla ko wax mu ngi ci dëgg bi lan la ñu ne ko bët bëttal ma ba ma génn na na bëttal su ma demee ba ñu ci fan ak nga nekk ak wax ñu wax fii ñu ko yonent te buñ la koy faral takk naa bu doomi doomi nit ñi koy faral man dina koy faral ñi def nañ leen ay jaam ñi rey nañ leen mu ne ko loolu xew mu ne ko loolu xew mu ne ko ba nga ko ko def ngeen fanam ko bu ñu def fanam weesu la la fekk na ko naa mu war faral leen mu daal di ñëw ba xam ko ñu fan nag mu génn na sa loolu ko ko fekkee état bi si lu lay def daaw tànn jëm ca Kaaba ba. wala jël naa yi mu mu rek ba mu rek ba lool. mu ne ma mu mu ko def. ma ne leen ko xam ñu ne ko ay wóor la ko ma ak yëg ba dee. yonent bi dafay bata. jël na doom yi jigéen yi. bu dee kay ba ko defara. rey na bu dee kay ba di mën a la ba man man ngan na yëpp kay na jàpp na seen i jigéen jël nañ seen ñu ne ko loolu boo déggee ñu ne ko léegi déggee ñu ngeen ko wax rek ngeen liggéey ñu ne ko def tamit may def ko la ngay wax ñu de ko def ci la la wax nga yaa sa bopp rek waaye ko nga ko def ci rek ñu la la tax ne ñi ko pass ko ko ñu de ba ko tax euh wa ko ci yoon fa xam ne yow ñu ko def ko ci jënd leen yàlla la mo seen nga ko ko mu ñu yo sa ñu la ci bi ah xaaral ñu ko fekk leen mu ne ko wala ko ngi nekk do ko la fekk alhamdulilah ayatollah déclaration yàlla lu ñu yàlla teewal ñu mën a am yëpp ak ak gërëm ñu mën a am yëpp ak fekk di fekk léegi xeefar yi ba mu ñëwaat ci seen kaw ndax lu nekk kaw xeef ak xalam yéen a ñu ñime waaye ñu yokku waaye ñu yokku ak mu mu jural leen seen ak ak mu yàlla teg yoon xam ne mu jural woo baax ak yeneen màggal yoo xam naa seetlu bu dëgg yi gis ne lam tax ñu wax ak ci dëgg laa ci moom te mooy màggal yi dara jóge France ak Europe ndax da ngeen ko France da ngeen ko jëlee ay màggal da ngeen ko góorom da ngeen ko jëlee ay màggal kat am na baax ñu ne yàlla ba nekk ci moom yàlla xam na ne loolu dana am ndax am na rek wa kaana laahu masdaran yàlla ak

dalam yang orang yang mana bahkan yang wala lu ñu def rek ci wet su ñu daay ci baax te bu ñu la ko def yàlla xam na la ko def dara lu ñu ko ala na la rek moom lañ ngay def woo moom buur allah ñu mën na xam ne ko rek ñu way ñu ay waxeen yàlla ñu ko seen yoxo yéen saxaaba yu yéen yu ak saxaaba yi an kumbalis leen moo teg seen loxo ba xeexu leen ak ñoom comme ne xaal bi nu di jàppe woon rek mu bàyyi leen ñuy bi leen waaye diyekum ak doxa seen yéen maanaam walis leen ñoom yee fërie bi bat di makka ci jàquru makka wa ca Hudaybiya yéen ñëpp keroog ku ci nekk rek yàlla téye sa loxo ba mënoo jokkoog sa morom ngir xeex de min baa de anas farakum gannaaw bu mu loo leen alay ci ñoom gannaaw boo xamee ne yàlla seddal la seen xol ci ñoom seddal na seen xol yéen julli ñi ci ñoom mën mën nañ mën mën na noot ngeen leen eh, ci ñooñu ñëwoon ne dañuy song si yonent mooy ñoo xam ne mooy ñu doonee bu jaar bi indi loon de yàlla mën na noot na leen jàpp ngeen leen ba pare bàyyi leen de wakkaana laaw mos nañu yàlla parce que ren gaa xam ne maa tàmbalu na seen da ngeen jëf ko de li ngeen jëf yëpp yàlla xam na ko de moom ñoom xeetu Makka alladina yooyu naan walis néegam yàlla ba ñoom xéefari màkka yi ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ba pare teguñ ci nag ne dañ leen di fekk bu ngeen dugg ci néegam yàlla bi waa wal hadiya wal hadiya tañ euh, euh, wal hadiya tañ tañ fekk euh, hadiya yooyu de hadiya yi ngeen jëloon dugg ko yóbbu ngeen a yàpp ñu la barabam dafa loñu waaye seen de xaaya lëj xaaya hëj yi ba luñ mën a àgg fañ leen di lojee walaw aw góor muminuuna yu deway muminuuna yu deway gëm wa nisaaw na ku jigéen muminaatin yu deway gëm yàlla itam lam taalamuum ñun xam ci leen am tatawuhum bu ngeen rayal leen de ak itam yàlla teg seeni loxo ba xeexu leen ñoom ndax bu ñoom mun am màkka am na fa ay góor ay jigéen yoo xam ne ay juddi lañ te yéen xamuleen leen su ngeen demoon di reyanti di di mën ngeen a rey mën ngeen rey seen mbokki jullit yooyu ci ay góor ak jigéen seen bàkkare loolu moo tax ba tey yàlla feg leen ba dugg leen ba xeexu leen ak ñoom de fottu si boppam te jot leen rey googu leen di rey nge rey googu ngeen di rey jullit ñi minum ci ñoom maa am gàcce de su ko defee bu ngeen duggoon ba wees seen mbokki jullit ñu gàcce na leen lépp da rey leen ci xam-xam ngeen rey leen da ngeen leen a xamul ngeen bi ci ah, ci ñu kon nañ nekk la kon ñu ñaan nekk beru nañ ba nga xam ne yonent mu duggee Màkka dina leen xàmmee yàlla mu ne su fekkoon ne loolu am na yu jullit ñi beru nañ leen kon keroog tey dina mbugal xeefar yi mbugal moo xam ne dootuñ ko fàtte mukk azaban mbugal aliman mu de boromam nekk si tënde ñi ko noonu yàlla dina leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu metti la waaye nag jullit ñooñu nekk ci seen biir taxamu leen taxamu leen leen moo tax yàlla fekk leen ba tax xeexu leen ñoom de is jaala mu defee moom yàlla alladina mbugalam ñaa ne kafaru wéet nañu fi qulubihim ci xol seen alxamiyata muy cot cotloo xamiyatul jaahiliya ci cot cotloo way réer ña yàlla def ci xol yi xéefar yi noonu bañ ak mbugal moo xam ne mbugal ñu nekk seen xol rek ñoom ñëpp ñu nekk ni ñoo xam ne nit ñuy cot cotlooy lañ wala si dëgg xéefar yi ak jaahiliya yi dañ daan cot cot loo rek lu la lu la seen moom rek ñoom ñëpp ñu jóg dëgg la wala du dëgg waaye gannaaw si nit la la rek amatul dëgg la amatul dëgg dañuy jóg rek fayeeku ñu rek bu ko defee loolu nag ànd ak rëy goo xam ne ci ñoom mu ne rëy googu moom la leen yàlla takkaleet ba seen bi si keroog yooyu rek ba anzala Allaahu wàcce yàlla sakiinatahu dalam nga alaa rasuulihi ci yonentam yàlla wàcce dal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa alal ak ci julli ñi yàlla wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa dal wàcc ci julli ñi dal bañ na ngoo xéwénante ak xéefari màkk yooyu def ca Xudaybiya wa alzamahum mu taqale leen mu may leen ñoom julli ñi kalimata taqwa baata ragal yàlla te mooy laa ilaha illallah yàlla may <clears throat> julli ñi nag baata taqwa mooy laa ilaha illallah wala mooy laa ilaha illallah niñ jëlee ci ubay ibnu kaab mu ne laa ilaha illallah waxdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli ñu ne mooy loolu wala ñu ne mooy bismillahi rahmani loolu yépp waaye lu ci dugg rek mooy ne baatat ragal yàlla mooy mbóotam yàlla ñan la ko yàlla di may mooy jullit yi nga xam ne ragal nañ yàlla ñooy am mbóot de moo tax mbóot sëriñ si ci lañ jëlee ci joxe seen mbóot yi nga xam ne doomu ne ku nekk lañ joxe mbóot mbóot boo koy joxe da koy jox koo xam ne xeeyoo na ko waaye su am nga mbóot jox ko koo xam ne xeeyoowu ko yàq mbóot la bu fekkee itam nit xeeyoo na ko ñëw nga bañ ko koo jox bu boobaa tooñ nga kooka moo tax sëriñ si ci fii lañ jëlee ne seeni mbóot ala fokk ñu xam fañ koy taaj ndax mu meññ waaye nag su fekkee ku ñëw rek ba mbóot nga jox ko ku ñëw rek bëgg mbóot nga jox ko ku mu ñëw rek bëgg mbóot nga jox koy jox waaye itam ko aayee eewoo itam bu boobaa tooñ nga mbóot ma tooñ nga nga ko aayee rek dañuy nettali benn taalibe nekk ci sëriñam di tarbiyewu rek te tarbiyewu tarbiyewu tarbiyewu ah ba benn bés mu ne ko sëriñ man yàgg naa fi te damaa bëggee eewew mu ne ko muñal mu muñ muñ waaye di laaj rek di laaj rek sëriñ bi ne ko demal ba ca bi dëkk ba boo demee nag ko foofa yendu fa boo ñibbisee nag loo gis rek nga ñëw nettali mu leen dem ca fekk dëkk ba di seet di seetlu ba gis benn màggat boo xam ne màggat màggat fekk ba romb Dan dem di taxani di jaay ci lay amé lu muy dundé su taxanee ñew jaay jaru sax am lu dundé bam ko defé bam taxané ba ñew gis ben alkati japp ko dóor ko dóor a ba muy bëgg dé mu ne ko jël sa matt bii nga yobbu ko ci wañ la ñuy toggalee bi mu bëgg bañ mu dóor a ba muy bëgg dé dee bëggoo mu mujj nangu ñan ko yobbu ko ci wàññi bur ba bam ko defé mu ne ko lolu nga gis mu ne ko waaw mu ne ko boo amoon tur ma doon laaj bon nooy def mu ne ko bon ma ñaan yàlla alkaati boobu mu ala ko de mu ne ko kooku mu doon def loolu nag sëriñ màggat moom mooy sama sëriñ moo ma jox tur bi de moo tax tur yàlla kenn du ko jox ko ayoo mu yàq ko wala mu xalak wala mu xalak kenn du moom de mu ne wakkaam yu nekk xàqati gën a ayoo bi ak moom te ñoom julli ñi ragal yàlla ñoo gën a yomb ci yàlla yi rek wa ahlaha ak ñooñam wa kaana allahu mastade yàlla aliman di aja xam li kulli shay'in ci lépp def leen laqad sadaqa allahu dëggal na yàlla rasulahu yonente ba ruyaa gént ga fil xaq ci dëgg la yàlla waxoon yonente sallallahu alayhi wa sallam na ko danga danga dugg maa ko war ko mu ne yàlla dëggalal na ko ko de balaa xat maa jeex rek yonente ubbi na màkk ci seen rek lu mu leen koy dëggalal leen nag mooy du yoon woowu la ñuy màkka waaye danañ dugg màkka ubbi ko rek la tadxulan na wallaahi xal ngeen a xalaat almasjida jumaa ja alxaraama ja dañuy xaram insha allah men sonn yàlla de yàlla loolu moo yonent bi ne dana ko da ngeen ko dugg màkka da ngeen dugg màkka de wax na nag wax insha allah ngir mu jàngal ñu rek ñun jullit ñi ne bu ñuy wax nañ ci wax insha allah waaye yàlla mi nga xam ne mooy def ak dindi kay moom soxlawul incha allah waaye ñun jullit ñi dañuy jàngal buy waxee loo xam ne nag bëgg nañ koo def nañ ci aj baat incha allah rek jàngal nañu ko rek ngir barkeelu de aminiina da ngeen dugg Màkka aminiina mbir mu ngeen di woy wóolu muxalliqiina mbir mu ngeen di woy wat ruusakum ay bopp seen de yéen ñëpp da ngeen dem Màkka ci kóllëre da ngeen dem Màkka umra def li ngeen bëgg a def yëpp ba wat seen i bopp te du ngeen gis dara lu leen di tiital leen wa muqassirina ak lu ngeen di woy duufule yaa imaam ngeen wat seen bopp ba maj ba mu yas takk watu nel aw muqassirina di ki ngeen duufu duufu nag mooy wat wat tuuti rek lu nekk rek laaj ci tuuti mu ne yonente taw na ah rahimallahu muhalliqin yàlla yàlla yërëm mooy watuña ña ñu ne ko woy duufu ñi nag mu ne yàlla yàlla yàlla yërëm way yi ñu ne ko way duuf ñu ne mu ne yàlla yàlla yërëm way wat yi ñu ne ko way duuf mu ne way duuf ñi nag watu moom la yoroon te gën a rek laa taxaafu na leen laa taxaafu na ragal ci leen dara da ngeen dem dugg Màkka te du ngeen ragal dara fa alima xam na mu ca jaar ca nen ca xéewal na ngeen defal Quraysh maanaam taala mu loon xamu ko ci xéewal ak ngir seen ba ngeen di jaay ba ngeen di xéwénoo ak Quraysh yàlla xamee na ci loo xam ne yéen xamu leen ko de te lam lam lam nga xam lam xam moom yàlla mooy lii ci la seen mbir di xéwénee ci la seen mbir di xéwénee yéen jullit ñi gannaaw tey de ba jaala mu def min duni zalika ci diggante loolu le fatxam ak ubbi xariban bu di aji jege de diggante nag bala ngeen a àgg ci xéewal yooyu nga xam ne yàlla am leen koy dig ak fatku makkata yàlla jaaral na leen ci benn ngëneel benn fatku boo xam ne fatku bu xarib la mooy fatku xaybar boobu nga xam ne def nañ fa lañ fa def ne woo moom yàlla allazi mooy buur ba nga xam ne arsala yónneen rasulahu yónnentam ba bil hudaa ci njub bi wal wa diinal haqq ak diine dëgg bi nga xam ne mooy yónni yónnent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu andi njub yoo ko mu indi diine yoo xam ne diine dëgg la li ñu xew ngir ne mu kaweel ko ala diini ci diini ku liggéey jéppam wagga yàlla moo yónnee yonent yàlla Muhammad yónnee xam ne diine njub la diine yonent yàlla Muhammad jooju nag mooy diine ji xam ne dina not mboolem diine yoo xam ne nekk nañ fi ndax mboolem ndax am na yeneen diine yu fi nekk wala yeneen diine yu fi nekk amul yàlla wax na ne inna diina indallaahi al islaam bon benn diine rek boo am diine boobu mu am ci la yonent yépp nekk ci la yonent yàlla ci la aadama nekk noox ba ci yonent yàlla muhammad ci diine yooyu yàlla wax ne mooy jenn diine inna diina indallaahi al islaam wa man yabtari gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu waaye nag comme que nit ñi baaxoo nañ di di di wax dara di ko tuddee diine rek yàlla ànd ak ñoom ci seen baax waaye diine eh, eh, bu fekkee diine am na eh, yahudiya ak nasraniya te yëpp boo demee seen cosaan lislaam waaye nag ñoom ñoo ko taxriif ñoo ko bëddal soppi ko ba nga xam ne melo ba mu meloon ba muy jógee ca seeni borom ca yonent léegi melatu ko soppeeku na soppeeku na jeex takk niroo bon baaxaay nit ñi rek moo tax yàlla ànd ak ñoom ci seen waxin ne ala diine ku lii ci mbooleem diine yi nga xam ne yàlla tëral na nit ñi tëral nañ ko ne ay diine la diine lislaam dina yëkkatiku ci seen kaw loolu mooy lan ndax mooy addina bi balaa tukki lislaam dina noot ba nga xam ne moom rek mooy benn doole diine bu nekk ci kaw àddina ndax loolu lay tekki am na ñu wax ne loolu lay tekki am na ñu wax ne itam ne loolu ala diini kulli yi mooy lii ñu nekk nii rek ñun jullit ñi gis nga jullit ñi ni ñàkkee doole ni ñàkkee kattan ni ñàkkee xaalis ni ñàkkee ànd ñoom ci seen biir ñoomu kese ñu ngi kaakante di reyante seeni noon di leen xeex di leen rey waaye taxut terewul foo fekk jullit yàlla rek la gëm foo fekk jullit mbokkam jullitam rek la bëgg weer bis weeru koor wi dana jàngale dara ci loolu ndax ñépp ñu ngi daje ci bés bii bëgg a màggal weer wi ndax gëm yàlla diine ji moo gën a màgg yeneen ju yeneen diine ndax xeex yi ngeen di xeex rey yi leen di rey xeex ñuy xeex ñoom kenn seen biir waaye terewul bu mbiram diine ji taxawee rek fàtte nañ yooyu yëpp dugg nañ ci diine ji diine ji ñëw na sant nañu weeru koor adduna bi yëpp ànd nañ we oradoo ndax gëm yàlla bon yàlla rek lañ gëm koor boobu itam ñu oor ko waral nañ ci seen biir ay jikko yu rafet tey kenn ku nekk rek yaa ngi bëgg sa morom ni nga bëggee sa bopp ndax xam nga li muy dal li li li nekk ci nga nekk kenn ku nekk yaa ngi bëgg am loo tàll sa morom ngir dimbalee ko ci weer wi bon kay loolu woon na ne lépp luñ sonal sonal diine yi waaye tey la fi gën a nekk tey la gën a dëgër tey la itam effort yi nga xam ne dañoo foog ne danañ mën a lislaam dara tey lañ gën a naagu tey lañ gën a naagu ne mën a luñ lislaam dara buñ egoo bàyyi ko fi rek ndax Euh, euh, lu tax ndax yàlla xas na wax ci yëfër yi wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b moo def ci xoli yëfër yi ragal ñu ragal ko ñu ragal ko lislaam ragal ko jullit ñi ba ci bési tey bii ba ci bési démb bii tey la yëfër gën a ragal jullit barki démb rek gis ngeen euh, Trump ca Arabie Saoudite muy tagg lislaam di tagg diine ji di tagg nit ñu baax na ne xeexukat lislaam lislaam diine bu kawe la diine bu mat la waaye terroriste yi rey nit ñi rek ñooñu lay xeexal ci la mel ni réew moo xam ne ci réew yi gën a bañ lislaam ci la bokk seen seex moo taxaw wax ne lislaam diine mu kawe la diine bu baax la diine nit la ak terroriste yi lay xeexal bay xeexutak lislaam kooku kay bon lislaam kawe na ko l'islam parce que na noot na ko boobu wax dëgg-dëgg yi l'islam te moo gën a loolu l'islam bu ko mënoon a jëlee tey mu jëlee ko fi de bon diine ji mooy diine ji nga xam ne waxtu woo ko rek dem nga ba di ko bëgg a jeexal rek boobu la diine ji di gën a taxaw ci kaw nit ñi boobu la diine ji di gën a taxaw di gën a dëgër benn jullit jullit jullit yaa ngi julli ba léegi kenn mënu leen a tere julli jullit yaa ngi xoor ba léegi kenn mënu leen tere xoor kaaba ga makka am na fa ay nangama ak nangam yu yu métti ñu dem aji suñu yoon nekku ci nañ dem aji rek bon jullit gëm na yàlla yàlla la wóolu yàlla la bëgg yàlla la nangul bon kooku kenn kenn farewu ko kaw de wa antumul a'lawna in kuntum hmm? in kuntum mu'minin gannaaw ak ngeen foofu rek yéen a tiim keneen dul yéen de kon li yom si rek wala diine ku lii mën na nekk ne balaa àddina tukki yàlla dina feeñal lislaam ba mu gën a kawe diine yëpp wala itam yàlla jamono yii ñu nekk rek mu ngi feeñal kaweeg lislaam rek ndax bu ngeen jàngatee euh, géographie addina bi lislaam da ngeen gis ne foo nekk rek ñu ngi koy sànni ay xeer ak bëgg a rey ak bëgg a jeexal waaye terewul tey lañ fi gën a tey fi gën a nekk tey la gën a noddu waxtu noddu bu yëpp tey ñu dem yëkkalante rajo noddu julli jàngal Quraan kon koy loolu diine la boo xam ne liñ koy xeex yëpp terewul mu fi te moo leen tiim ñoom yëpp de wa kafaa doy na billaahi si yàlla seede nañu seede ne ne ne seede ne yow yonent si yàlla nga de su fekkee ñi ñu ngi sikki sàkk nag yonent a gaat yonent yàlla moom nag mu nga de muhammadun muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah yonentab yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad yonentab yàlla la de fii ngeen di gis yàlla ngi tudd yónnante tudd ko Muhammad tudde ko Muhammad rek tegu ci dara wax na ci benn ñetti laay yoo xam ne tudd na ci turam euh, euh, dafa in maata aw qutila ma kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum ak fa in maata aw qutila ah inqalabtum alaa aqaabikum ak oh, ak wa maa Muhammadun illa rasul ak bi muhammadun rasulullah waaye seetal yooyu nga xam ne tudd na ko ak turam seetal lu ko cay tegal maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullah feeñ na ko fii muhammadun kese kese rasulullah teg na ko ci yéen ñii yëpp nag bu koy oo daf koy oo yaa ayyuha nabiyyu rasulu rek la koy ooye waxtu waaye rek mu koy ooye di ko màggal waaye fii nag ooye na ko lu tax du ooye ko ko moyne ne yi weesu yeb yalla diko melale mellalee yonent bi diko ko degeerale diko ko ñemelo diko ko dando dandoo sekinata sakinata fay yow loolu yeb yalla wax ko mo ko kooku yalla wax kan la muhammadun muhammad la de ñu xam ki yalla di wax yeb muhammad ni rek la waye nak mu jaar ci turam ngir ñu xam ne Muhammad moom la yàlla di waxee waaye te rew su ko waxee Muhammad teg ne ci ne rasulullah ko yàlla la def ne yàlla ko yónni bon loolu noonu mu meloo ak ci melokaan yëpp yàlla ko ko yàlla ko ko melale rek wala si ne ñaane maa waxaat ne na ñoom moom ci ay saxaabaam ñoom itamit yàlla leen di melal si ci nuñ nuñ mel mu ne wala ñu ne ñaane maa waan nañu moom ashiddaaw way xiis lañu alal kufaar ci xar yi rek nit ñoo xam ne mu ne saxaaba yonente yi nga xam ne dañoo ànd ak yonente nit ñu xiis lañ ci xéefar yi xéefar yi xéefar yi ak xéefar yi bépp jamono jullit dafa war a xiis ci xéefar be du ñu leen yaram ruxamaa way yaram way yaram lañu bay na moom diggante seen de way jullit ñi dañuy xiis ci xéefar duñ ko yërëm waaye ñoom ci seen biir dañoo war a yërëmante dañoo war a bëggante rek dara am gis leen rukaan ñuy way sujjóot ñuy way rukkoo sujjóotal mbir mu ñuy way sujjóot de mu ne loolu mooy melokaan ni jullit ñi dañoo xiis ci xéefar yi dañoo baax bëggante ñoom ci seen diggante yonent wax na ci benn xadis bu wax ne al muminuuna ka jasadil waaxidi ida ishtaka minhu udwun tadaa lahu saa'irul jasadi bi sahawi wal kumma noonu la jullit war jullit ñëpp benn rek ay mbokk lañ ay mbokki ndey ak baay lañ donc bor mooy ñoom ñëpp bëggante dimbalante Euh, fonkante ku nekk jox sa morom cër boo xam ne moom la ko yàlla jox ndax yàlla mu njëkk a màggal doomu aadama balaa doomu aadama du yeesu julli sax yàlla màggal na ko ndax wala qad karramnaa banii aadama banii aadama rek ñëpp ko bokk jullit bee xeebar bi gannaaw gi nag la jullit bi moom am cër boo xam ne cërëb suusee la yàlla ko ko yàlla ko ko jagleel xaritoog seen mbokki jullit yi

jullit ñi ngëneel lu nekk ngëneel bu nekk ci nit rek mi ngi ci jullit muy éefar bi muy ko dul éefar ndax lan jaam bi yàlla moo ko moom moo def ci moom ay mbóotam mbóot yooyu mu def ci moom émale ko ci benn jaam rek jaam yépp la ko defal moo def ci ñoom xel moo def ci ñoom mën nañoo dégg moo def ci ñoom mën nañoo xam ni yépp ñépp ko bokk benn jëru ko bàyyi benn waaye nag noo gën a góorgóorloo gën a ittewoo gën a yeewu jëm ci sa bopp naka ngay gën a mën a xamee loolu nag bala nga ko mën a am dana fekk lu bari dootul doon sa aajo loo lekk dootul sa aajo am na alhamdulilah fu ma tëdd du sama problème am naa ko maag suma njaboot fu nekk nekk bu tey bu dal am naa ko bu boobaa nag ngay door a mën a xelaat jëm feneen waaye su fekkee sa xëy ak sa gont yépp lu mu yóbbu ci kër nga rek la kooku du gaaw a defar dara du gaaw a mën a génnee dara ndax li lu lekk rek ndax lu am lu mu lekk rek yóbbu si njaboot nga doy na ko bu ko defee def na lépp su fekkoon na nag jullit ñi lu mel ni réewi arab yi nga xam ne seen pétrole yépp ñi koy jëriñoo mooy américain yeeg anglais yeeg français yeeg su fekkoon ne alal yooyu dañ ko dugal ci biir jullit ñi ba doyal loo leen ba ku nekk nag mën a xalaat beneen xalaat amul sikk ne mën nañoo génne xam-xam boo xam ne tubaab yi mënuñ koo génne ndax tubaab yi l'islam génne na xam-xam boo xam ne ba léegi tubaab yi ak seen rëy rëy rek moo fi nekk waaye dëgg-dëgg amuñ xam-xam bu bees bu ñu jox nit amuñ ko. ndax xam-xam yépp seen tëruwaay mooy allama bil qalami allamal insaana maanaam yàlla kooku bi yonent yàlla Muhammad ñëwee lañ ko door a xam bi yonent ñëwagul xamuñ ko woon allama xalaqal jinsa iqra bismi rabbika alladi xalaqa xalaqal insaana allamal insaana maanaam ya'lam yàlla moo xamal yonent yàlla moo xamal mbindeef yi su ko defee nag xam-xam boobu nga xam ne mbindeef yëpp ñoo ko bokk seen góorgóorlu ak seen itte nu gën a àndeek leer noonu la gën a mën a àggalee nit ci xam-xam te xam-xamu diine xam-xam bu ànd ak leer la wa man lam yaj'al illaahu xam-xamul islaam ak leer la ndax qad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin kon xam-xamu leer la rek dafay gën a mën a àggal nit ci xam-xam boo demee nag tubaab yi am nañ xam-xam naam waaye xam-xam bu àgg bu yem ci xel rek la ci xel li ñuy sukkandiku ak tëjuba expérience dangam ak dangam ak dangam foofu la seen xam-xam di gën a bàyyi ko lu ci gën a bëri waaye nag xam-xam boo xam ne dañ koo sukkandiku gëstoo ko ci kaw ah, ah, nuuru samaawaati wal ardi jaa akum min allaahi nuurun Euh, allahum nu laa yooyu yëpp nga xam ne leer la kooku bu la àggale ci xam-xam moo gën a leer de moo tax boo demee suñ borom xam-xam yi nga xam ne ñooñu jiitu ci lislaam yu mag ñi mbooleem tëral ñu xam-xam boo xam ne nit dina ko soxla ci dundam boo demee tëral nañ ko amul dara loo xam ne waxuñ ko ci xam-xam xatta xam-xamu physique sax boo demee wax nañ ko ndax boo demee ci euh, Euh, imam Ghazali dinañu jàngal la zamana bi duni xaraka la zamana bi duni xaraka wala makaana bi duni madda wala makaan bi duni madda loolu physiciens yi mënuñoo passé boobu mënuñoo wax lu ëpp loolu ci loolu jamono boo déggee jamono rek yëngatu moo tax ñuy wax boo déggee place itam lu fa nekk rek moo tax ñuy wax place foofu xam-xam yu bëri ñi physiciens yooyu yëpp boo demee ci sukkandiku ci lañuy ñuy gën a yaatu enchaînement yaatal jamono dugal ci génn ci kii itam ñoom ñëpp ci biir jamono rek fekk boo demee ah Mouhamadou Ghazali indi na ci loo xam ne moom rek moo ko moo ko indi keneen indiw ko njëkk Mouhamadou Ghazali keneen indiw ko gannaaw Mouhamadou Ghazali xanaa gën koo yaatal rek. donc bon seen xam-xam yooyu ñuy réyee yëpp boo nañ ci sànni xam-xamu lislaam la de moo tax lislaam moo moo moom moom lépp loo xam ne lu gën ci nit la ci àddina lislaam moo moo ko gën a ayoo waaye jullit ñi nag su fekkee ñoom amuñ yëg amuñ amuñ doyat amuñ amuñ amuñ euh, faydaay lii nekk suñ biir nañ ko jéem a génne lii nag ci biir ci ay xam-xam ak ngëneel nañ ko génne ci suñu alal ci suñu ndimbal ci suñu taxaw benn réewu arab rek bu ko nekkoon mu jeexal xiif ci àddina bi benn réewu am na benn nit na alal ci alal loo xam ne bu ko nekkoon mu jeexal xiif ci àddina ndax alal génne ko tasaare ko nit ñi liggéey ci mu yokk xiif xiif jeex waaye defuñ ko ko seen alal yi ñu ci loxo américains yi ñu ci loxo anglais yi ñu ci loxo yëpp yi de bon loolu la leen yàlla melale woon ne ashidda wala kufaar roxamaaw baynahum bon jullit ci jamono bi moom meluñ ko ndax ñoom ashidda wa alal muminina roxamaaw wa alal kufaar lañ nekkee dañoo yëpp taw na danañu sàkku fadlan meneen mi na laay fekk ci yàlla wa ridwaanam ak yërmande ñoom ñu ngay juddu kooku si jóor di sàkku yërmande ngërmande yàlla ak ngëneelam de boo leen gisee siimaamum mandarga seen si wuñ lu wéyul aji nekk la ca xar kanam seen de boo leen gisee rek gis ci seen xar kanam leer ak gëm yàlla ak leer ak jaamu yàlla rek boo min asari sujuuti min asari sujuudi ca jeexiti ca jeexiti euh, sujjóot ba xam ne sujjóot ñu ngi koy sujjóot guddi de bo jullit ñi boo leen gisee loolu nga leen dañoo am mandarga ci seen xarkanam wala na jul ay jullikat lañ bokkut ak julli yooyu nga xam ne da ngay jël suuf rek def sujjóot pour ah julli na julli nga ah julli la waxuñ loolu rek ak itam jël sa euh, sa jët di ko def ci suuf di ko def ba am mandarga boobu ñu wax ne jullikat nga sa bopp rek ngay nax julli boobu di wax mandarga boobu di wax ne mi ngi ci julli mooy leer bi nga xam ne leer bi nga xam ne bo gisee julit rek eh, yàlla dina la may nga yëg ci moom leer boo xam ne du jëmm ji moo la koy wol waaye jëfam yi nga xam ne jëf na ko ci jaamu ci jaamu ci guddi gi moom la yàlla di feeñal ci kanam mu nekk leer fanaane julli boo xëyee rek sa njël da ngay leer waaye bu màndargaay yooyu nit ñi def ci seen jéyeeg di sol ne màndargaay jaamu yàlla du yooyu yeneen mandarga yoo xam ne xel mu set nga koy génne de daalika loolu la ñu mel la leen ñoom jullit ñi masaluhum mooy melo seen ci tawraat ci tawraat noonu la yàlla wax ci ñi ne mooy ñooñu nga xam ne ashiddaa'u alal kuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min Allah mu ne ñooñu ñoom noonu leen yàlla melalee loolu mooy seen meloo ci tawraat tawraat loolu la wax ci ñoom rek wa masaluhum te mooy seen la fi linjiil yi ci linjiil linjiil yi tam noonu lañ fa mel rek kazaray ni ki mbay axraja bu génn na mu ji injiil moom ñu ne leen mel la rek mu ne jullit ñi gëm yàlla dañoo mel ni kazaray ni ki mbay axraja boobu génn na mu shatahu gàncaxam nga rek mu ngi mel ni mbay moo xam ne dem na ba tàmbale sax génne gàncax gi fa azarahu tam dëgëral ko ba ba ko defee yàlla dal di dëgëral mbay moomaa fas tax la sa tam kiis tam tal fas tax waa tam yemoo ca ala suuqi ca ca ca kol ca kol bare bu ko defee nag noonu la jullit mel ci tawraat mi ngi mel ni mbay boo xam ne mi ngi tàmbalee sax bu tàmbalee sax ba pare eh, ci dogal yàlla ak mbëgg-bëggam mu dëgëral mbay mooma mbay moomu dem ba commencé génnee bu génnee dal dëgër dal tal bu talee nag ba nga xam ne tal na dal jub ci kaw li nga xam ne mooy sax waaye ba ne mooy pol mooy pol bu njëkk bi muy génne rek ah, yooyu yëpp dana mu yem loolu suraa baykat yi su ko defee nag bu demee ba mel noonu nga xam ne mbay na génn na sax na ah, gàncax gi génn na pol yi génn na sax na li mu war joxe yëpp joxe na ko bu ko defee baykat bu ko gis rek dafay kontaan ak kontaan ndax mbay mi rafet na baykat bu taxaw ci mbay mu tool bu sax ba pare na muy kontaanee moom rek boo ko xam ne puisque euh, bi góob yi taxaw rafet na mu ko bëggee tool yi taxaw na mu ko bëggee kontaan si nga muy kontaan si rek moo ko yëg moom baykat boobu de moo tax yàlla mu ne yooyu yëpp dina mu yëngu suraa baykat yi li yàq yi sa na mu merloo bihim ci ñoom alkufaar yéefar yi nga xam ne yooyu dinañ de yàlla nag mu ne moo ko doxalee noonu julli ñi xam nga mbay booy tàmbalee ji da ngay tàmbalee ji rek xamoo dina pare wala du pare nawet bi dina sotti wala du sotti boo demee nag ba gis ne mbay maa ngi màgg dem na ba màgg ba génnee euh, euh, li nga xam ne moom doon bëgg ci moom bu ko defee da ngay kontaan da ngay dégg su ko defee dégg boobu ngay dégg nag loolu dafay merloo jéefar yi xeetu yonent lay mel la ñun noonu lañ mel bañ tàmbalee jóg dañoo dañoo néew doole bañ nekkee Makka ñu leen di néewal doole ñu dem Medina itam taxu leen am doole waaye yàlla di leen sàmm di leen dëgëral di leen may kattan bañ mujj nekk ñoo xam ne dañuy merloo xéefar yi ndax niñ foogoon ne ñii nii lañ fi yomb a jëlee kat ñii léegi dem nañ ba sax su ko defee loolu daf leen di merloo rek waaye dana merloo julli ñi nga xam ne itam ñu ngi gis ne léegi am nañ doole boo xam ne ku leen ku leen ku leen tooñ rek ñu fayee ko mu ne nag yàlla ngi noonu la yàlla def li li yóbbee da ne mu merloo bi yëm ci ñoom ak waada laahu gasal na ko yàlla lazina gasal na yàlla lazina yaa yaa amul gëm nañu wax naan dañu def salaati wala dara ak naa fi lay ci ñoom ci saaba yi ak ñeneen ñi di ñoom maxfiratan mbax wa ajran ak yoor asiran bu dee aji màkkate mooy aljanna rek yàlla nag defal na jullit ñi nga xam ne gëm nañ leen jéggal te dana leen may yoor bu màgg te yoor boobu mooy aljanna rek sóoratul Hujuraat saaru loolu ya madaniyatun ku jóg Madina la samaanuuna juróom-ñett fukk laa seetaan ci aaya bismillahi sotama salam si tudd wóor arrahmaani kaay yi xew bi naaf ñëpp si dunya rahmi kaay yi xew julli daal ci àllaaxira yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday laahi wa rasulihi wàcc na ci ñaar ñi gën a màgg ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy Aboubacar ah Aboubacar Omar ibn Khattab saxaaba yi ne ñun de suñu kilifa yi xaw nañoo xalaat ko de su tax soo dem baax ak yàlla muy Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab ak Seydina Omar dañoo toog ci kanam yonent yonent di seet mu mën a jiital ci euh, benn njàngal njàngal njàngal bu mënoon a yónnee Babacar ne ko yónneel euh, Akra. ibnu Xaabis Babacar ne ko yónni naa xanaa ibnu Xaabis Omar ibnu Xattaab ne ko déedéet yónneel Maabad ah xa xa xa ibnu Maabad Babacar ne ko da ngaa bëgg a wuuteeg man rek waaye xam nga ne euh, aqra boo gën a mat njiit ci xaaxaa waaye li ma wax rek booy dëgg ba xaaxaa ibnu Maabad boo gën a mat euh, ba mu ko defee ñu <coughs> waxante. ba seen kàddu ba ba yëkkati ko ci kanam yonent bi wa sallam ñoom la yàlla di wax yaa ayyuha alladina e yi ci kanam yàlla wa jullit ñi nga xam ne gëm ngeen gëm ngeen te jébbalu ngeen bu leen defati dara jiitu ci yàlla ak jiitu yonent yàlla Muhammad de toog leen rek lu leen yonent sant ngeen def ko lu leen aaye ngeen bàyyi ko waye bu len ci nek nak ne da ya ngeen di da ngeen da ngeen di bëjante da ngeen di bëjante rek nangul len rek li len wax ngeen def ko rek wa taqul la ra leen yalla inna la naka yàlla seen na ñu njëkk na mo ay wax seen alimu na xam na mu ay jëf seen de ragal len yalla ta xam na yalla ngi ya yalla ngi degi seen wax ngi xam seen i jëf de ngoog yàlla àtt na leen lépp xam nga waxi pexe ak nangam ak nangam loolu yàlla moom génn na ci yoonam nekku ci waaye nag lim am nag moom mooy na leen oo na leen oo rek indi leen ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu njub moom lañ war a topp Amar ibnu Xataab Abubakar Sadiq juum nañ seen juumte googu yàlla aju ci da daf leen daf leen ciy génne rek ñëw leen def leen lii moo gën a baax ragal leen yàlla moo gën a mat ndax yàlla ngi gis yàlla ngi xam bul ragal leen yàlla rek yaa ayyuhaa lladiina aamanu e yéen ngaa yegam alquran laa tasoo bu leen yëkkati aswaatahum ay wax seen fawqa sawti nabi ci kaw wax yonent bi de e yéen jullit ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu mukk ci kanam kàddu ci kaw kàddu bi sallallahu alayhi wa sallam te bu leen yëkkati seeni wax itam ci kaw wax yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam wala a bu leen bi dal lawu ñaan ko bil qawli ci wax bu leen di wax ak moom itam wax leen wax yoo xam ne wax ju yar la wax ju yaru la bu leen si nekk di xaaj ci kawam que yar ribaat bi comme ni ki bidal ak lenn seen libaat yi de ni ngeen di waxtaan ak yéen kese ci seen biir bu leen ko waxtaan ak yonent de bu ngeen di waxtaan emale seen i de ndax lan an tax ba te ngir ragal bu yàquwat ah maa ko may jëf seen de ndax seen jëf yi ngeen jëf bu yàqu de wa antum te yéen daal tashuruun na ne seen mbir de bu ngeen di wax ak yonent ànd leen ak emale leen seen kàddu nangu emale leen seen i kàddu te yaru leen ndax mën ngeen a nekk di indi ñàkk teggeen yooyu ci kanam yonent seen mbir yàqu te du ngeen ko yëg de inna ladina naka ñaaña yaquduna danañu danañu eh, eh, damm aswaatahum ay bët seen inda rasulillahi fa yonent a bu ñuy wax ak moom damm seen kàddu mu ne ulaayika ñooñu la gaay alladina ñooy na imtaxana laahu nag suñu yàlla xulubu mu ay xol seeni taqwee ci ragal yàlla de mu ne ñi nga xam ne nag dañuy wax ak yonent bi damm seeni kàddu duñu wax ci kaw wax ndànk yàlla mun ne ñooñu mooy ñi nga xam ne yàlla natt seeni xol ne ñooñu ñu gëm yàlla lañ ñu ragal yàlla lañ de mu ne may da nag ne lawum yàlla leen maxfiratun mbaax waa juru nag yor wax si mu daa ci kawe te mooy wàcce te mooy xajana de inna alladina naka ñaa ñu naadu naka danañu woola min wala wàcc na fan wàcc na ci mbooloo ci bani tamim ñoo ñëwoon ci yonent bi ñuy fekk yonent ngi yor yooru te loolu bu di yor yooru maanaam nelaw waxtu yor ñu ñëw rek kën kën kën kën kën Muhammad waxuñu lay yaa Muhammad waxuñu lay naa yaa génn ci ñun ndax ñun ay woykat lañ wa alsinatuna bilaad te yàmme yu ñaw lañ am boo génn mën nañ laa wax nga naqadi génnal génnal ba mu ko defee nag ñoom la di wax naan moom ñoom la di nettali de ne inna alladina naka ñaa ngi yu naa dina ko danañu wala min waraay ko yuraati ca gannaaw loolu ya ak saroom gën ja seen laa yaqiluuna xerit ñu la ñuy def ñoom ñëpp ay dof lañu rek ay kaw kaw yu jógee ci àll ba nekk moom dara ñoo ñëw rek di wax ak ولو انهم دون تنك نيام صبر مون نيو سو فيكون لي مون ني حتى تاتو جي بل فكك گيني لين ديم سيوم لا كان كنتم نك خير ندا يگل لو نيار لين والله يلا رسول الله يگل لو نيار اي خجب اك اك اك نيرم دي ايو الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبي فوكل قوسل واتي دا سي كوني واخ ولي ابن عقبه ابن ابي معيط وليد ابن عقبه ابن ابي معيط mooy doomu Uqbata ibnu Abi Muayt Uqbata ibnu Abi Muayt mooy ki nga xam ne lor na yonent lor boo xam ne lor bu métti la ndax boo fekk yonent di julli mu dem jël ay mbalit ay ay kiis lu gën a bon rek mu ñëw teg ko ci kaw yonent ba pare jël baatam jël tànkam teg ko ci dox yonent bi di bës ba nga xam ne yonent ba poñe ko poñe ko poñe ko ba yonent ba jàngi bu xeexu si taxaw di ree rek doomu yonentu sallallahu alayhi wa sallam Fatimata moo jógee ci kër ga ñëw jaar diggante bàyyam ak Uqbata ibnu Abi Muayt ba pare as Quraysh dam ko defee nag Uqbata ibnu Abi Muayt moomu moo jur Walid ibnu Uqbata Walid ibnu Uqbata nag ñëw na ci yonent jëbëru la doon la julli yonentu fal ko ne ko demal ci gàdd ak gàtt gàtt ak diw nga jëlee ma asakaay mu dem ba dëkk ba dal di ko ñeew ndax dafa fàttali bu ne dafa am sa bi te bu naa bu ñu rey ko mu dal di ko ñeeku rek ñëw ci yónnant ne ko man de dem naa waaye bañ nañ dañ sax dal mer bëgg a bëgg a bëgg rek dal di takk xare bi nekk yónni ba muy dem ba dëkk ba ñëw di indi si seen asaka biñ ñëwee ne yonent dañoo dégg ne da ngaa yónnee ab yonent waaye ak suuf ci ñun ne asaka yi nga doon laaj asaka yaa ngi nii dajale nañ mu ne ah ba léegi lan la ñu ne ko dëgg dëgg demuma damaa dem ba jub dëkk ba wàññeeku ndax dama faa rayoon nit dama ragal nag dem ñu fayal ko ci man man ci man kaw yoon ñu ci man yoon rek la wax na du wax ne fasik la kenn xamul ne fasik la waaye nag gannaaw gi la fasik la ko boobu dal di feeñ ndax ñu def ko ilimaan ci benn jàkka ndekete dafay naan sàngara mu naan ba ànd ñëw di jiite nit ñi julli jàng alquran dal di julli ba mu jeex ñu ne ko jàng mi de neex mu ne bon ma doon jeex ñu wax yonent ne ko kii nii la nii la wax ko Medina mu dal di génn leen dem ba mu ah, nekk ci biti ba ko yonent génn ca suuya ci yonent ñaan ni dafay tuub yonent ne ko déedéet yonent génn àddina Babacar ñëw mu ñëw tuub mu ne ko yonentam génne na la Babacar génne na la Omar mënu la dellu demal rek bi Seydina Ousmane faroo daal di koy dellu si ndax ñoo bokk ndey mbir Madina indi Madina boo demee xay yu xew Madina yëpp bañ rey Seydina Ousmane ci moom moomu la bàyyi ko rek moom la yàlla di wax yaa ayyuhaa llaziina aamanu yéen gaa yi gëm Alxuraan in jaakum ngeen dikkal leen faasiqun aji génn topp yàlla manam fasek bi da bayin ci solo fa te bayanu bi biddu leen ba ngeen ko deugal de ku ñew wax leen dara na ngeen teelu ba xam ñu leen wax lan la bu ngeen tëb rek deugal ko de an tusi boobu ngeen ragal bu ngeen tooñet bu ngeen jotat xawman aw bi bi jaadatin ci tooñ de ndax bu ngeen ko bi biddu du nañ am ngeen tooñ fa tus bi wutu ngeen ala alama faatul ci jëf jooju ngeen jëf ci njuumte naa di bi na ngeen di woy ci la ngeen def de bu laa bu leen nit ña waxee leen dara daal bu leen tëb rek leen teelu leen teelu ko seetantal ko ba xam li mu leen wax dëgg la wala déet wala su fekkee def leen loolu mën ngeen indi ay problème yoo xam ne da ngeen ko récolté waaye nag moo xam leen na fi kum naka ji nekk na ci yéen rasulullah yonent bi yàlla na ngeen xam ne yonent yonent ci seen biir de bu leen wax ay naar yoo xam ne du dëgg ndax bu ngeen waxee loo xam ne du dëgg. yàlla dina ko ko xamal yàlla dina ko biral dina ko biral ci seen i mbir de waaye nag moo xam ne dina fi um naa ji nekk de ci yow Rasulullah ñun tam yàlla loolu fee um doonte kon toppoon na leen si kasirin ci aji bëri mi ne dem ci mbir daa nañ ko moom kon tey ngeen bàkkaat de yonent ak ci seen biir yàlla koy jubbanti waaye su fekkoon ne yàlla jubbantiwu ko li nga ñu topp leen ci li ngeen koy wax kon bàkkaat yu bëri da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko toggoore walakin na laaha lu fi nekk yàlla xababa soppaloo na mu gileekum jëm ci yéen ak ñi maa gëm yàlla rek seen gëm yàlla bi yëpp yàlla moo leen soppaloo ci seen xol ngeen bëgg ko moo leen soppaloo gëm yàlla rek yàlla ñu ko yàlla may wasa yéen woo mu rafetal sopp boobu fépp lu kum kii xol seen de yàlla moo rafetal gëm yàlla ci seen xol wa karaha mu sibloo ileekum jëm ci yéen ak kufra kéefër wal fu suuqa ak ak ak ak génn topp yàlla wala isyaana ak mooy yàlla de yàlla moo rafetal ci seeni xol sibloo leen kéefër sibloo leen fisq fis eh, sibloo leen mooy yàlla yàlla leen ko may rek ulaayka ñooñu mel noonu hum ñoom ar-raashiduna ñoo ma demay sax ci gëm yàlla de ñooñu yàlla mel noonu ñooñu sax ci gëm yàlla de fadlan muy ngëneel mi nan ay tukkee ci yàlla diine jooju ak mi sax boobu yàlla nga leen leen yàlla may rek la wane ma tax ak xéewal bu tukkee si yàlla def wallaahu yàlla alimun aji xam la moom ay mbir seen xakimun aji xeran la ci ay xéewalam de xéewal yi leen di sottil moo xam yàlla am na xikmatu boo xam ne ku nekk rek da nga soxla ci xéewal yàlla dina la ko may ba mat sëkk wa in taifatan min al muminina iqtatalu kooku lu ko wasal wàcc na ci mbolo ci jullit ni Abdoulaye ibnu Ubay ibn Salul yoro ko dafa dégg na amna ci sahaba yi ko febar mu génn dem ko set bam mu sahaba yi seen yoro ci kaw giréem ci kaw mbaam ñu ñew ñëw di ko nuyu Abdoulaye ibn Salul ak ci bi ñewé mbaam yoro ci wat saw ba ko saw Abdoulaye ibnu Ubay jël kaalaam def ni ci bakkan manam saw yi mbaam yoro ci bi dafa kese ko dana saxaaba beneen saxaaba ci kanam ñu koy wax ibnu rawaxata dañu ne ko yaay tencu sawam mbaamu yonent bi te sawam mbaamu yonent bi moo dàq seen li bi moo gën a xeeñ sa moo gën a neex sa la koy bii ngay xeeñ de kooku dal di ñor tontu ko dal di koy tes ñu commencé di dóorante ba dóorante ay dàll ba dagg ay bànqaas tàndar la di dóorante aw xay bu bëri bëgg a tàkk ci seen diggante ñoom ñaari ñaari ñaari xeet yi ñaari xeet yi saxaaba yi rek ñoom da yàlla di wax mu ne wa in taa'ifataani ndem ñaari ku ne minal mu'miniina ci jullit ñi iqtatalu wute nañu ñaari xeet jullit ñi fekkoon ne wute nañu ñàkk nañoo déggoo ci gis-gis faas dafa yowet na leen bay doomaa dégg ci seen bu waal leen war ngeen jullit ñi mooy ngeen jéem leen a jubale rek fa in baxat nen dew na ixdaahuma kenn ci ñoom ñaar alal uxraa ca keneen ka nag fa qaatilu rayen xare leen allati ak kuré ba nga xam tab yi dana mu bew xataa tafiya ba bata mu dellu ilaa amrillahi jëm ci mbiram yàlla te mooy dëgg de fa in faat nen dellu nañu nen dellu nañu fa asna ko ngeen leen leen bay na maa dégg de seen bilaa dali kii maandu wa ak surtout maandu leen lan laa naka yàlla yokk dina ma ko al muxsitina way maandu ñaari ñaari kuréel jullit la leen tuddee waxu kuréel xeefara kuréel jullit ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañ te Abdoulaye ibnu Saloon lañ ci waaye naafeq la ñu ko tuddee jullit ndax nëbb na kéefaram ci feeñal jullit mu ne ñaari xeet jullit ñett bu ñu utee ba indi xeex seen diggante mu ne na ngeen leen tàggale tàggale na ngeen yéwénal seen diggante su fekkee nag am na kenn si ñoom koo xam ne bew na ne bañ a bañ baña bañ a bañ a taxawoo bañ a mu ne boobaa yéen ñëpp ànd leen xeex ak kooka bu ñu demee nag ba nga xam ne ñëpp dellu nañ jëm ci jub jëm ci ma jëm ci maandu jëm ci baatu yàlla ba nga xam mooy dëgg mu ne boobaa nag na ngeen xewal seen diggante na ngeen leen jubale waaye na ngeen maandu ci jubale nga nag ku tooñ wax leen ko ne yaa tooñ. kuñ jëlé fam nañ ko délo lool yépp na ngeen ci mag na ngeen ko def def boo xam def bu maandu la dé te itam na ngeen maandu ndax yalla maandu dafay yool ñi nga xam ne dañuy maandu de maandu nag mooy lu doomu aadama gën a soxla ci aduna bi du dundam yépp maandu rek da ci gëna soxla motax amna ñu koy jaawal ci sax ak liberté liberté liberté liberté waye dama dama dëgg dëgg maam la soxla waaye soxlawul liberté de ndax liberté daf koy lor waaye maam moom daf koy jëriñ maandu daf koy jëriñ lim yaakaar ne bu bu amee liberté dina ko am su maandu te amee boobu la koy amee de maandu sa digganteeg sa boppam maandu sa digganteeg sa borom maandu sa digganteeg sa jaami yàlla yàlla yi xataa sa bopp sax yàlla sant la nga maandoog moom ko teg loo xam ne attanu ko. ko tek lo xamne ne ko da ngeen ko tek ittaqullah mastataatum yep do attan rek maandu sa diggante sa bopp boo maandoo sa diggante sa bop ni ñep and ak yow ci maandu bon tooñante du am merante du am luy waral nga nga da ngaa soxla liberté du am nit ñi di soxlaa liberté moy maandu bo ñak rek waye bu maandu amone bon soxla ko sax da amul benn njëriñ lim gën a lim gën a jëriñ doomu aadama mooy yàqal ko rek yàqal ko rek waaye nag su fekkoon ne maandu am na nag buur maandu buur bi maandu itam digganteem muy sàmm ñi muy sàmm maandu digganteem ak moom amul dara lu soxla yépp yàlla dana ko yombal diggante waaye bu maandu amul nag di jaawale diggante maandu ak liberté maandu lañ soxla waaye soxlawul liberté rek moo tax yalla mu ne mandu leen ndax da fay yool fay jox yool ñi nga xam ne dañoo mandu inna man mu'minuna naka way gëm yalla yalla exwatun ay mbokk lañ ci diine ay mbokk do ay mbokk do mi lay bay lay sax ndax ñun ñi ñëpp rek kenn mu ko génne kenn sa morom ñun ñëpp wala ay mbokk kese lañ faas def yeewal wala leen bayna naa ko diggante ay mbokk seen de gannaaw moom la rek da ngeen yewal seen digënté ca nam gën a rafetee rek bu leen xëccoo bu leen meroo bu leen xastante yooyu yëpp mënta ñàkk ci diggante ay nit ay nit buñ dëkkee danañ xuloo danañ meroo danañ xastante waaye nag bu ko jël nag muy sa xaayida boo xam ne ci ngay continuer boo xuloo nit yaddal sa bopp lu tax waruma ko xuloo bi rek wax ko lu ko naqari boo demee da nga yàq sa bopp lu tax ma di ko wax lii ah lu tax ma di ko métti lii bu ko defee jéggaluwante baluwante eh, yépp yépp boo tax yàlla indi ko de ndax mënu ñoo dëkk ne duñ tooñante loolu moom du dëgg foog ñu tooñante mënu ñoo dëkk ne duñ meroo fokk danañ meroo mënu ñoo dëkk ne duñ xëccoo fokk danañ xëccoo waaye nag bu ko def nag eh, fas woo xam ne moom ngay war rek waxtu wu nekk di ci def li nga bëgg moo eh, moo tax yërëmante leen bëggante leen dëkk faas la ko yéene leen bay naa mooy suñu diggante ay mbokk seen bu leen xëccoo te bu leen ngeroo de wattaqullaaha ragal leen yàlla laa lakum bu ngeen ko xam nga def seen i def yërëm leen ba yërëm leen de ragal leen yàlla bu ngeen ko ragalee yàlla dina leen yërëm de yaa ayyuha alladiina aamanu laa yasxar qawmun wasal wàcc ci mbooloo ba tey ci Bani Tamim ñu ñëwoon seet si yonent ba ñëwee mooy wëf boobu rek ñëwoon te doon yóbbu ci kanam yonent ba mu ko defee ba yonent génne ci ñoom Ammaar ibnu Yaasir ak Bilaal ñu ñàkk ñooñu ñu ne yonent ñu ñu sant ñi ñu tidd ñii ñu tidd ñii nag ñu kasew ñii dañ fi jógee yonent nag déedéet ñu fi jógee ñi dañuy toog man de ñu ne ko ñii ñu toog ak yow ñun ñu toog ak yow mu ne leen bu yeboo def waaye ñii dañuy toog ak man de ñoom la yàlla di wax ne yaa ayyuhaa llaziina aamanuu in kaa yutlamal qur'aan la yasxar bu mokke bu reetaan xawmun aw nit min xawmin ci aw nit de bu bu benn xeet bu benn mbooloo ci ay nit di xeeb seeni morom di leen reetaan di leen tànc di leen wax wax yoo xam ne daf leen di naqari bu ne bu leen ko def jullit warta def loolu moromam benn jullit warta suufee moromam benn jullit warta gis ci kaw moromeem mbokkam jullitam ñëpp ixwatun baat boobu noonu mu maas noonu mu ñu maasee rek noonu la inna man muminuuna ixwatun ixwa nag lu war seen diggante fa aslihu bayna axawaykum ndax xam ne dañ juumte dana am moo mu ne fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamuun nag bu ngeen yàlla yàlla dina leen yërëm de mu ne ñoom ñu wax ko nag ne sooy ba ak amaar ñu ci lim ñii ñu xesew ñii dañ jógee fii ñoom la yàlla di aay ba di aartu ne leen bu leen def loolu rek aseera xamaan na an yokku bu ñu nekk ak xayran gën ñun ci ñoom ci yàlla rek ñii ngeen di reetaan di leen xeet naa am leen gën ci yàlla rek bu xeet aw jigéen bu tànn ci aw jigéen bu xas aw jigéen bu xeet aw jigéen mi ni saañ ci aw jigéen rek benn jigéen ba taqet benn jigéen de asa xamaan na na ñëpp noonu ñu nekkat xayran ci gën mi noonu na ci ñoom de benn benn xeetu nit aw mu ci arab mooy ni ñëpp waaye nag dañ koy gën a jolla jella euh, ci góor moo tax moom la yàlla bu waxee xaw bu fii dugal na ñëpp waaye terewul génne na ci nisaaw nga xam ne xaw mu mu mu biddal na ñëw ñaari biir yëpp lay waxat góor jigéen ñeeg góor ñi ne xastante xeebante tàncante loolu warul am diggante jur ñii de xasaara man na ñëpp nag ñu nekk ak xarante yi gën ñu na ci ñoom de jigéen ñi di xeet seen waram yi jigéen di leen reetaan mun naa am dañuy reetaan ñoo leen gën de mu ne laayet bu njëkk bi mu ngi wàcc ci banu tamim laayee ñaareel ji mu ngi wàcc ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha banu tamim mooy ñooñu doon xeet ابو جا اگر صاحب اگ بلالا کا مالا نیول ابو سیدتنا عائشہ مودن خلوق سفیتو بنت اخت ابن تقوی ابن اخت قصفو نکو یہود بی دوم یہود بی منیو چیرن تنکو دنگل ما ایسا وار وحنا ما یہود بی دوم یہود بی منی دیرے یو سفیتو بنتو mu bintu Haaruna yonent ak yàlla yow Safiyatu doomu doomu Muusa Muusa bay taxam la da doomu yonent ak yàlla yow Safiyatu jabare Muhammad yonent ak yàlla la yow kenn amatul la wax de dalli oodaay si te mu yow mu wax wax boo xam buñ ko sotti woon ci géej gi mu woy de bon nag dama balu ko daa seetaan dem ba lu ko def waaw wala talmizu bu leen ayibal anfusakum may bopp seen de bu leen fi nekk di ayibal seen bopp ay ayibal sa bopp mooy ayibal sa morom boo ayibalee sa morom rek mu ayibal boo xasee sa morom rek bu xas bu xas la laa tasubbu lazina yad'una min duni llaahi fa yasubbu llaaha addan bi ghayri ilmin naka noonu boo waxee sa morom boo waxee sa nit loo ko war sa wax rek mu toog mu delloo la bu boobaa yaa ay yëgal sa bopp rek wala te naan lu bu leen sànnaan sa bil alqaabi ci ay euh, askan ci ay euh, askan bu njëkk saaba yi dañoo bëri woon ay kaf sànnaante ay alxaab yoo xam ay muñe yoo xam ne ay laxab yoo xam ne baaxul bu leen ko defati bu leen waxee bu leen wax seen moromu jullit yaa kaafir wala yaa faase oo leen ko rek ñi nga xam ne mooy turante bi sa bon na al ismu bàkkaat boobu ñu tudd mooy al fusuuqu mooy génn topp yàlla baadal imaana ci gannaaw gëm yàlla rek loolu ngeen di ooree seen mooy mi di ko tuddee fasek fasek mooy kan mooy koo xam ne gëmoon na yàlla gannaaw mu génn ci nekk fasek mu ne loolu bu ngeen ko ootam te fi de baaxul de ba man lam yetub ku tuubu mu ci loolu muy doon jëf foofu laay kenn ñu la gaa yi ñoom alzalimun ñu ma ne way mooy yaa ayyuha alladina amanu ijtanibu kasiran min azanni baada zanni ba tey mu ngi wàcc ci mbooloo ci saxaaba yi ñëw ci yonente ne dañoo xiif yonente ne dem leen ca mu jox leen mu ngeen lekk mu ñëw Salmaan lekk amu fi dara amu fi ñu ñëw ne ko Salmaan ne dara amu fi mu ne dem leen ci Abu ñu ne déedéet dañuy doxum dëgg lekk gaan fi dañoo bañ rek waaye euh, euh, dañoo xañaan rek bañ ñoo lekk lekk nekk doon yonente du ñu xebal ci ñoom de ne mer dal di ñaawal ñaawal seen jortu ci seen mbokk yi ñoom da yàlla di wax ne yaa yoo da dina amanu e gaa yi gëm alquran ijtanibu teen leen kasiiran aji bëri mina zanni ci njortu ndax lan inna baada zanni lenn njort yi suñu bàkkaat la rek ndax yenn njort yi bàkkaat rek la taxawu leen ko fenn foog naa ne diw moo def bii foog naa ne foog naa foog naa mu ne loolu bu leen ko def baaxu a gaa ñi nag bañ demee ba nga xam ne ñu eh, ñëwoon ci Salman dem ci Amar amuñ ñu ne ñu toog ba guddi rek ñu leen dem ne dañuy reju seet ba xam fu gaañ denc ñam bi dañ koo nëbb rek waaye ñam am na fi yàlla ne leen wala te gëstu suuf bu leen reju bu leen dem di reju nit ñi de wala yax ëpp bu jaww baagu leen seen baagal ci lenn bu kenn ci yéen jëw moromu jullitam de jullit warta gën warta jëw moromu jullitam bàkkaat yi gën a màgg ci addina bi te nit ñi bàyyi wuñ seen xel mooy bàkkaat yi jëw de moo gën a màgg wala yax tab bu jëw baatu ku ngeen seen baat doon ci lenn dégg ni ko yàlla melalee ne noonu la mu ne ay xibbu ndax dana sopp ahadukum kenn ci yéen an yàkku bu mu lekkat lax ma axiihi ah, yàpp mbokkam ma ñi tën muy añi dee ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam mu dee mu dem di ko di ko togg di lekk mu ne noonu ngeen bañee loolu noonu la jëw ba nee de ndax boo koy jëw mu ngi mel yaa ngi lekk aw aw ñamam yaa ngi lekk ay deretam de te booy jëw nit baat boo ko wax su fekkee dëgg la euh, su fekkee dëgg la sax jëw la euh, su fekkee du dëgg nag da koo duutal duut moo gën a euh, màgg jëw jëw nit mën na koo def bu foog ne jëw mooy ku fi nekk rek di wax moom nit mën nga koo jëw fekk mu ngi toog mooy ni nga koy wax mu naqadi ko su fekkee toog na wala fàddu na yépp euh, jëw la su fekkee li nga koy wax nag naqadi na ko waaye moo ko def bu boobaa euh, da nga koy da koy jëw su fekkee nag li nga koy wax ko def ko yëgu ko boobaa da koy sosal sos nag moo gën a bon ci mboolem xeeti bàkkaat yi rek ci mboolem xeeti jëw yi rek ba pare tur woowu ngeen sib ko seen mbokk yàpp mbokk woowu ngeen ngeen ko nangoo lekk sib ngeen ko bon nag jëwi kat noonu la mel de nee na yonent ola ñaari bi ñuy ñëw mu ne ko wëccu gis yàpp ak deret di ci biir bi mu ne ah man fu may lekk mu ne ko sa mbokk mu doon jëw boo nekk nii de yàppam waa ngi nii dañ ko doon lekk de jëw ci bàkkaat yi gën a màgg bàkkaat yi gën a bon la waaye ci yi gën a neex nit ñi la ndax wax ci nit gannaawam dafa neex te làmmiñ nag mooy musiba mi gën a màgg ci doomu aadama laay yëpp def ñuy jàngal ne nañ wartu xay wu làmmiñ ndax làmmiñ moom bu nit baax moo gën a baax ci moom bu nit di bon moo gën a bon ci moom de te làmmiñ amul ku ñeewu ta wax ñi mën naa wax ci yàlla ci boppam ñi mën naa wax yàlla ne ko li wax du dëgg ñi naa wax yonente ne li ko wax du dëgg faale kenn ku ko neex rek ñi mën naa wax ci moom ragalul dara du sut dara waaye nag yow yaa ngi fi ko yoo xam ne yaa ko koy tëjee moo tax euh, làmmiñ mën naa jëf ci teew mën naa jëf ci fàdd mën naa jëf ci tukki mën naa jëf ci kuy dund mën naa jëf ci kuy dee làmmiñ noonu noonu de dara tëju ko ñu ne moo tax yàlla dafa ko ñaari bëñ ñaari tëjukaay bëñ yi ak tuñ yi ndax nga mën koo tëj waaye moom yooyu mën a ko dara nga la la la la wax ñu guddi wax bëccëg te waxoo dara mu ne waaye yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam bëri na nit ku dugg safara te mu góobitu làmmiñam rek moo ko fa dugal moo ko fa dugal de bon wattu leen làmmiñ baaxul wattaqullaa ragal leen yàlla inna laa naka yàlla tawaabu nanguwaa nanguwaa koo di tuub la yàlla dana nangu seeni tuub bu ngeen tuubee de raximun aji yaram la mooy jaamam de yaa ayyuhan naas de yéen nit ñépp lu ko wasal fatxu makkata yonent daf ne Selmaan wala Bilaal du woon def ci kaaba nga nodd mu jóg def ci kaaba gi di nodd Quraysh kat waaye ñu ne jëpp ñi dee ñi dee ba fekkewul ci kaw kaaba néeg bi naan bi yuuxu ñii de ñii dee ñoom sant yàlla de te ba fekkewul bis bii de ñoom la yàlla di wax ñu yaa ayyuhan naasu ay yéen nit ñëpp innaa naka ñun xalaqnaakum bind nañu leen min ci génn góor woowu si ak génn jigéen te mooy Adama ak Xawaa wa ja'alnaakum def leen shuuban ngeen di ay xeet wa qabaa'ila ak i giit li ta'aarafu ngeen ngeen xamante ne yéen ñëpp muy muy Shuayb bu muy keneen muy keneen ku dul moom yéen ñëpp yàlla leen bind ngeen jóge ci génn jigéen ak ci génn góor rek muy Xawaa yàlla def leen nag ngeen di ay xeet ak i kuréel yoo xam ne dim bind seen diggante mooy ngeen xamante rek waaye du nekk fii di balat di gén xeebante na yonent mu ne laa fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa xayrukum indallahi atqaakum yonent yàlla wax na ci laaya ji ne xayrukum mi ngi ñëw léegi di taarafu inna akramakum gën jaa tedd seen indallaahi fa yàlla ataaku mooy gën jaa ragal leen lu mooy gën jaa ragal seen mooy gën jaa ragal seen yàlla de ki gën ci yéen daal mooy ki gën a ragal yàlla de inna allah naka yàlla alimun aji xam la mu ci yéen xabirun aji xam la moom ay baatin seen ni leen yàlla xamee ci noonu la leen xamee ci biir de kenn gënut kenn nit gënut nit nit ñëpp benn lañ de ndax ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi ko ci suuf ñu ngi bàyyi ci jógee ci benn jigéen muy xawaa ak aadama ñoom ñëpp yàlla leen bind moo tax nit ñëw na ci isaa ne ko xabila diw ak xabila diw bu gën mu tibb ñaari loxoy suuf ne ko ñaari tibb yi bu ci gën mu ne ko benn mu ne ñëpp a yem kenn gënut kenn ñëpp a yem ñëpp a bàyyi ko ci yàlla ba nag lii baaxal nit mooy topp li ko yàlla ne topp ko boko topé bax nga mat nga boko top nak ñun ñepp ay ñepp ñepp and a ci manqué allah yàlla si jërëjëf lu ma nekkoon première partie bi nga xamante ne nii moom lañ ubbee wàllu firi alxuraan fi si na bay kontaan nañ bu baax a baax sëñ maay ah, Cheikh ibrahim Niass kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi joxante ay rendez-vous incha allah ba suba incha allah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf Vamos conseguir, vai conseguir. vamos vamos sabe, vamos saber. Vamos Vamos saber. Dá. Isso,